asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di delloo am nuyoo man la sëriñ Abdou Lahad Mbacké Ndoulo dëkk fii ci Touba Mosquée marché Ocass di sëtub sëriñ Sam Mbacké Ndoulo fii di suñu dëkkuwaay ci Touba. li waral woote bi mooy euh, ku ne dañ dafa xam ni fii ñu nekk euh, day foo xam ni fu ñëpp bokk la muy réserve réserve nag boo ko déggee mooy publi euh, fu public bépp bokk nga xam nañu nekk ci koñ bi fi lañ war di nekk. fi la ñu war di def li ñu war a defee lépp ci wàllum mën a jël lu mel ne ération war féex lu daal comme niñ ko mën a waxee loolu ku ne xam na ne kon lu am solo la ci dëkkuwaay ndax ab dëkkuwaay environnement daf ci baax environnement day dundal doomu aadama ñu gis ne depuis si ñëpp laat ba léegi euh, euh, kii bi mu ngi fi euh, bërëb bi mi ngi fi di ab réservé comme ni mu nekkee bërëb yu bëree bëri fii ci dëkk bi si ñëpp laat jaar fi bàyyi ko fi ñu bàyyi woon ko muy réserve bu événement jotee parking bi nekk ci jumaa ji bu feesee parking bi day ñëw ba fii muy doon loo xam ne lu ñëpp di jariñoo la moo am important boo xam ne ku ne xam na ne mook jumaa ji matut 100 gis ngeen ko mook marché bi mook marché bi moom 5 mètres tee dugg ci marché bi yéen a ngi sax ci marché mhm. doon intersection boo xam ne ku ne xam na ne ku jóge ci marché bi jëm jumaa ja kii jóge ci rond point daaray kaamil bi jëm si nii virage bi dafa gàtt mhm. ñu fi defee dara bu ñu fi yëkkatee dara baa ñu tabax fi dara kiy jugee nii dootul gis kiy jugee nii parce que virage bi dafa gàtt. surtout ci marché nga xam ne gis ngeen circulation bi heure bi fii central ndax moo jugee diggante kër Sëñ Fallu ak Sëñ Abdoulahi borom dër bi di tëli bi gën a mag man man nga ne ci côté bi ñu mu xat-xataay boo xam ne ku ne tëg na ci sa bët ñoom loolu doyu leen organiser wu noo xam ne population bi dina jariñoo li mu moom ludut ginnaaw si ñëpp ginnaaw Sëñ Saaliw siñ Sëñ Saaliw dafa waxoon ne bi mu daggee fii ay 3 mètres jox ko kilifa yi ñu séq ndax fii këri kilifa rek a fi ne lii daf ne nañ ko fi bàyyi muy 20 mètres bi def ko réservé réservé nag liñ ci xam buñ fi mënta def jardin public nga xam ne war may jumaa ji ndax ni mu jegee jumaa ji loolu du mën a am duñ fi mën a def ay chaise ak yooyu mais ñu def fi reboisement def fi ay garab yoo xam ne dinañ jël lu mat 15 mètres wala 20 mètres euh, bàyyi 3 yee ndax lépp environ 23 mètres la waaye catlee mooy 3 mètres yi ñu def loolu ñu bàyyi au moins diggante boobu oto yi virage di jugee fu ci ne ci marché bi ci coin yëpp man di gisante looloo sabab ñu ñëw fi di ko naqarlu dem nañ nag ba yëg ne sàkkal nañ ko pexe ginnaaw bu mu fi nekkee doon yëfi population bi muy terrain bi ñu ne gis ngeen ko fii ni mu xatee oto yaa ngi leen di jugee fu ne mu doon loo xam ne jaay nañ ko defuñu ko bërëb boo xam ne dañ fiy defi garab li ci des ñu bàyyi ko espace pour oto yi mais defuñu loolu bu loolu munta am ñu ñu ñu pavage ko bàyyi au moins mu doon parking waaye nag jëlee fi bàyyi woon nañ fi ay cantines yu ndaw ndax xamoon na ne dañuy dañ maam ñuy daan seen doole lañ euh, donte débordé wutoon ay cantines yu am yoo xam ne matul sax un mètre waaye loolu bokkut ak nga ñëw tabax def bâtiment ca ku ne xam na ne ki jënd fii investissement la fi bëgg a def du fi def benn euh, du fi def R plus du fi def air plus 2 gis ngeen marché bi kër kilifa yëpp looloo ko yàq waaye nag bu loolu amee it marché bi dem ba gis nga li fi xew barki dem muy ñoo ngi massawu coono Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général ndax li dal ci kawam ci njabootam la dal muy commerçant yi fii ci marché bi waaye waral loolu lépp mooy lu mel nii rek luñ cadré wut luñ tegut luñ teg ci luñ tegut ci programme ñoo ngi ñoo ngi massawu it commerçant yi yàq war fee def dara ñu leen di wax ne fii du bërëb bu ñu war a def dara fii ci marché bi la ne di reserve boo xam ne ku fi def dara li muy créer ci choc dafay bëri mhm. cayit dafa jege jumaa ji cayit boo ko fi defee ñi nekk ci marché bi man mi fi dëkk ak ñi fi dëkk ñëpp lu mu fi mën a def dina dox diggante ñoo ñii ñun ñii ak jumaa ji mhm. ca loolu moom depuis ñu jumaay Touba taxaw depuis Touba taxaw jumaay Touba taxaw lii ñu am moom mooy di xëy di jàkkaarlook jumaa ji ca espace public bi may ñu ko may ko population bépp loolu ay caaxaan duñu ko xañ nañ ko defar ca defar ko ci defarin wi nga xam ne bu ñu ko defaree population bi dinañ ci mën a jariñu mooy def fi ay garab vert espace vert dafa am solo mën nañ fee def ay garab looloo tax kon ñoo ngi wax ne laat ka ñoo ngi koy interpellé ñoo la euh, duñ duñ tudd mais xam nañ ne jaay nañ ko waaye ñoo ngi topp procédure bi ca xam ne duñ bàyyi mm-hmm. di waxit waa Touba yëpp li waral ñu def sortie bi mooy ku ko seetaan fa nga ne ca réserve nefa nga respecté ko ca ña fa nekk saytu ko. Mm-hmm. ndax ay réserve dañoo war a dem ba réserve yu nekk Touba yëpp fu ku mel ne Touba ca kanam. Mm-hmm. def fa ay sardin. Mm-hmm. wala ñu samp fa ay garab kon ni mu def yoonu Touba yi loolooy defar ab dëkk waaye réserve duñ bàyyi garab yi bàyyi pavage yi di ko yëkkati surtout fu mel ni fii duñ tudd tur waaye xam nañ ne daal mi ngi sori. mairie bi nag luñ lu mel nii saa su amee buñ ko ko waxee mun a yëgu ko woon. ca teguñu ko fi ngir yëgu ko woon. yow la dénkee dëkk bi. ne la dëkk baa ngi nii ñu teg ko ci say loxo li war a tax dëkk bi jaar yoon waroo xaar ko la ciy xalaatal donte da war a am conseil war ngaa déglu say conseil waaye yow boo tëddee guddi war ngaa xam li baax ci dëkk bi xam ne dëkkub Sëñ Tuubaa bi ab taar rek la méngool baatin rek la méngool waaye ñu bàyyee la dëkk bi buñ fa jaayeb réserve nga ne yëgoo ca yow lañ dénk dëkk bi loolu it Abdou Lahad Ka ñoo ngi lay interpellé di interpellé ñëpp ñu nekk ci koñ yi ne lii fas yéene nañ ko commencé tey fii waaye reserve yëpp incha allah dinañ def ay ay ay ay ay yoon yoo xam ne dinañ mën a dem ci reserve yi yi xam ko yëpp boo waree ñu dem jébbal ko xalifa général mu jébbal ñu jébbal ko ko bu jaree ñu jébbal ko it laat ka mi nga xam ne moom lañ denk dëkk bi ñu jox ko ko waaye xalifa général sax lañ gën a yaakaar ngir mu jox ko ñu mel ne Touba ca kanam ñu mën a defar réserve yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi